Sénégal dafa nekk réew moo xam ni dañ koo donn donn ko ci génération yoo xam ne dañoo xeex lu mel ni lamin kure Gueye lu mel ni Blaise Diagne lu mel ni Galandou juuf lu mel ni Léopold Sédar Senghor xeex ba tubaab bi nañu am ngeen seen indépendance ñooñu kon ne di xeex ay bakkan rot nañ ci ay nit gaañu nañ ci ba ñu am indépendant tabax li ñuy woowee état mooy réew moo xam ni daa am ay bànqaas yoo xam ne moo koy doxal mais Senghor xam ngeen ne lu jiitu ñuy wax état Senghor dafa tabax li ñuy wax nation fexe ba réew moo xam ni pulaar ak séeréer mankaañ ak manjaago sooninke ak pël ak ku mënti doon naar beeg wolof beeg lépp kenn ku ne jàpp sa morom ni kal la ci yow ñu ànd doo dund loolu depuis 1960 ba 2022 ñu jóge fa Abdoulaye Wade ñëw yor Sénégal jox ko Macky Sall joxin bu bu mucc ayib Macky Sall kóot na yor réew mi téye ko nag téye téye bu mucc ayib 2012 ba 2022 président Macky Sall dégg na lu ne wax nañ ko fi lu ne traité nañ ko fi tamit lu ne démocratie moo tax kenn ku ne yaa ngi wax la ngay wax bëgg koo wax la ngay wax moom du tontu du wax waaye ñun nag wax dëgg yàlla ñàkk ñu fayda ñun ñii désormais œil pour œil lay doon dent pour dent ku wokk nguur gi ñu war waxuma président Macky rek ku wokk lu bokk ci nguur gi ñu xuri la ku ñu séentu boo ñu xawee rek ju sax ñu ñu ñu ñu damm say laaf parce que foofu lañ tonn réew moom na dañoo jékki-jékki mu am génération boo xam dafa ñëw bees lépp liñ tabaxoon naal ko teg ko ci yoon bi jox cër ñi nga xam ni ay ay ay sookul lanu muy suñu kilifa diine ci wàllu nation muy suñu kilifa aada ci wàllu nation mais aussi muy ponk yi nga xam ne ñoo téye réew mi ñu koy woy ay institution lu mel ni président de la République lu mel ni président assemblée nationale lu mel ni ñu yor këru attekaay yi ñu leen woy ay cours et tribunaux depuis mille 2016 ba 2022 bii ñu nekk génération bu bees boo ñëw tabax léppam ci ñàkk teggin ñàkk yar saaga ay kilifa diine saaga ay institution saaga lépp ñu dem ba jëmmi jamono ginnaaw ba yàlla dafa tonn jamono joo xam ne day àtte nit ñi laata yomal ka gënoon rëy làmmiñ ci senegal ka bind lii bu tuddee ko solution feebar dab ko dikkal ko amul benn solution lu dul dem jox boppam ay xale yu ndaw ci ay lupanaar ay bërëbu fajukaayu soxla ba ñu jiiñ ko fa sàkku maanaam yàkkataan bu toppatal tuur ndox mu weex donc kooku ëbbatiku jiiñ président Macky Sall dafa complot pour ñu to maanaam jiiñ na président Macky Sall ne président ko yóbbu suite boo di jiiñ na président Macky Sall le président Macky moo ko dugal ci biir jiiñ na président Macky Sall le président Macky Sall moo ko sumiloo tubéy sumiloo ko yére tëddloo ko ñu maase ko mu tuur fa ndox mu weex kon complot boobu sama gars yi complot bànneexu bakken la mu jóg fa woo ndaw yi ne leen jamono jii jamonoy bàyyi clavier yi la jamonoy wàcc terrain bi la jamonoy xeex la ku wax loolu ay ndaw ñu génn taal ay tribunaux taal ay mairie taal ay taal ay Auchan yóbbu ay milliers de sénégalais en chômage ñu dem ba jëmmi jamono mu mel ni loolu France daal di xëddeen Adji Sarr mi jiiñoon moo mujj nekk prisonnière moom Ousmane Sonko mu ñu jiiñ moo mujj libre nekk maire xaw sax mu doon député mais yàlla ak ñëw xéewalam rocc cëru député gi teg ko nag ci banc des accusés pour ñu àtte ko. ñu gis ni Ousmane Sonko jamono yii passé génn na wax na ne day def xaw ma nemmeeku tour xaw ma sauver ma tour novembre ñëpp xam nañ ni procès en vue mois de novembre la. mu waxoon ne day génn def tournée novembre déclaré waale candidature am ànd ak màggati Pastef ay màggetum yoor yor daa mel ni màgget gi àndoon ak firaaw na rek duñ digle lu baax duñ tere lu bon xanaa kay ñu lay digal lu bon di la tere baax damay wax ni ay mag yi Ousmane Sonko dajale woon tuddee leen mag magi Pastef mooy mag yi nga xam ni ay seeni at la rek mais bu ñu amoon at yii xale yi am dañ sol peew sol ay boori jël ay xeet di sànni parce que loolu lañ leen xamee kenn xamu leen tëjuñu fenn tekkiwuñ lenn ci politique bi. du jul topp ci ginnaaw ay xale nekk ay magum yor ay magatum yor-yor di dawal naafeq ak ma ci mim réew loolu du sotti mu déclaré candidature am nag léegi Sénégal mel ni amul droit Sénégal mel ni yoon amu fi ñun nag ñu jóg en tant que génération républicaine waxuma activiste républicain waxuma bouclier di président waxuma waxuma leneen dama ne génération républicain muy muy ñi toog ñëpp ma ciy gërëm ñëpp ñi nga xam ne teew na damay bañ a lim di juum Canada yaa ngi ni ñu ngi gis ñëpp ñu jóg àndandoo nag. ak waa Géejawaay ànd ak le DG Lat Diop ànd ak waa Touba ñoom Cheikh Pouye ngi foofu ànd ak ak waa Thiès te daañu wër Sénégal gi yëpp def fa ay point de presse wax ak ñi jiite réew mi yor yoon ne réew mi am na yoon procès wala projet du am dañ ciy gaal suñu bakkan Ousmane Sonko buñ ko woowul ci yoon élection du am 2024 parce que nag ñoom dañ ñëwoon buñ leen restauré wul seeni droit élection du am c'est des poltrons des va ils ont reculé mais ñun li ñu wax mooy ñun ñoo wax ni buñ attewul Ousmane Sonko élection du am 2024 waaye lu manaar yaa ngi manaar yaa nga lay doon naar yaa nga lay doon ñu xool nag kan moo joxe bakkanam addiya kan mooy war a joxe na bakkanam addiya en tout cas ñun ñu wax leer na mooy Ousmane Sonko mënu fee nekk Sitor Ndour nit jiiñ ko yàkkataan traîné sax ñeenti fan lañ def ñu jël Sitor dem sànni ci ci kaso bi parce nag dañ jàpp ne amaana Benno Bokk Yaakaar la bokk beneen beneen sénégalaise jiiñ Ousmane Sonko yàkkataan waxuma la yàkkataan rek waaye sodomi la xeetu lóot doon def ba yàlla alak leen moom la Ousmane Sonko doon def suite booti te loolu yoonu Sénégal daf koo tere daf ko aaye dans la à l'article 319 du code pénal sénégalais qui interdit tout acte contre nature et tout acte impudique Ousmane Sonko loolu lépp la def donc au-delà de viol dañuy ñaan procureur mu def lu ñuy woowee réquisitoire supplétif maanaam dolli ci tuuma gi mu ko tuumal mu dolli tegtal ni Ousmane Sonko au-delà da yàkkataan doomu jàmb loolu affaire civile la daa def jëf boo xamante nii dañ yàlla daa bind nit ne góor jigéen lay sëyal jigéen góor lay sëyal Ousmane Sonko bàyyi fi bàyyi fi lépp ne nit buy sëy ci yoon bii lay sëyee l'islam digal ñu ko yoon digal ñu ko muy acte contre nature moom mu bàyyi ñëpp dem di sëy ak jigéen ñi seen demukaayu toilette donc loolu la def suite booti dañ ko teg ci kanamu tribunal dolli ci tuuma gi loolu muy acte contre il faut que procureur indiwaat li nga xam ni mooy réquisitoire supplétif ñu doon si li nga xam mooy appel à l'insurrection parce que moo fi woo sénégalais ba 14 jeunes sénégalais génn doon taal jàmmaala ay forces de l'ordre ñoom ñu rayante seen biir et je le dis ñoom ñoo rayante seen biir bu bu dossier boobu weesoo nag ñu doon a ñëw ci dossier bi nga xam ni mooy dossier 94 milliards yi il faut que juge bi woo Ousmane Sonko mu wax sénégalais yi 46 milliards yi mu waxoon ban banque la fan lañ ko def ak ban maanaam ñaata lañ dugal ci xaalis il faut ko journalistes yi woo Ousmane Sonko mu toog ngeen toog teg jël bi yoon ngeen jël seen micro téye ko seen bopp ngeen ne ko Ousmane dañoo bëgg nga wax ñu 46 milliards yi ban banque la nekk ban at dañ ko dugal ak kan moo ko dugal parce que feñ daa ëpp buñ paree ci dossier 94 milliards yooyu muy diffamation ñu jëm nag ci Ali Kalaj gi muy dossier François Mancabou ak dossier force spéciale il faut mu leer il faut mu leer nañ on demande o procureur de la République de diffuser l'intégralité des 13 minutes vidéo yi parce que wax jee ngi bëgg bëri tuuma yee ngi bëgg bëri on a en face de nous une force manipulatrice il faut que procureur dimbali sénégalais yi mu diffuser sénégalais yëpp xam ni François Mancabou dafa xaru mënoon nañ ci bañ a wax parce que faatu na dafa am njaboot mais njabootam ñoo continuer di wax ñi faral moom continuer di wax il faut que état bi tamit def dara pour sénégalais yi xam ni c'est à la septième minute vingt six secondes que le François Mancabou arrière dóor boppam ci gris bi mu faatu à la suite de ses blessures il faut que ñu génn ñu dimbali ñu génn ñu vidéo yooyu donc au la de au la de xaru gi mu xaru lan moo tax mu xaru il faut ñu xam ko ak ña ñu jàpp ñuy def transfert xaalis ña ñu jàpp ak ay cocktail molotov ña ñu jàpp ak ay batraque ña ñu jàpp ak ay pistolet factice ña ñu jàpp ñu doon waaj a cap moom Ousmane Sonko bu ko neexee mu tuddee ko neneen moo xam journaliste yi ñu mu jël bu leen neexee waxuma laa nag yéen parce que ay journaliste yu ñu intègre laa ñu jàkkaarloog man journaliste moo wax ñëpp a leen xam Sénégal tekkeetuñu dara Sénégal maanaam lépp leen gën Sénégal ils se sont reconvertis en des choses convertibles et reconvertibles par Ousmane Sonko à souhait nañu dañu deñe jël ñoom itamit seen seen seen seen seen seen micro ñu dem def investigation lan moo waral ba ñuy jàpp ñu jàpp moor Gueye Mor portable am génne Amidia Amidia nekk coordonnatrice Pastef adjointe bu Guédiawaye ñu jàpp Pape du Seck mobilisation Pastef moo ko yor ñu jàpp Pape Ousmane mu bokk Pastef ñu jàpp leen ñi ñu jàpp ñëpp Pastef leen bokk Ousmane Sonko waxuñu la yow la waxuñu la doo yow looy génn naan dañ ma bëgg jiiñ luñ la jiiñ dara ba léegi procureur génnul jiiñ la dara ba léegi ana xanaa man man maa ko jiiñ et en direct ne ne ne ne ne c'est lui qui est derrière tout ça et il le sait Sonko il le sait et j'aimerais attirer l'attention de la presse que ni j'ai longtemps dit que ni la suite par rapport ak César Atoute Badiate par rapport ak Ousmane Kabiline jaata par rapport ak Mapol jaata par rapport ak Cyprien Laurent Mancabou par rapport ak euh, euh, euh, nu mu tudd sax François Mancabou ce n'est que la suite de la tuerie de la Pointe Saint-Georges en 1992 ay wax day leer ce n'est que la suite du GIE Tabar ay wax day leer qui a eu son récépissé en 95 et qui a été à l'origine génnu génnu Khalifa Sall ci biir mairie Dakar j'ai posé une question aux journalistes j'ai donné une piste aux journalistes ki newoon ki tëjoon ci bureau document yooyu daaneel Khalifa Sall nu mu sant ak nu mu tudd il s'appelle Yaya dem leen journal ngeen gëstu maamu Ousmane Sonko bi ko yar daan faj rebelle yi nu mu nu mu tudd ak nu mu sant ngeen xool ban rapport la maire Bodian am ak Yaya Bodian ngeen xool GIE Tabar bi papay Ousmane Sonko créé en 1991 lorsque Marcel Bassène a été investi de mission pour gérer la gestion de la paix en Casamance lan moo waral loolu fan la jógee ak fan la bàyyi ko xam na ko César Atoute xam na ko Kabiline xam na ko Atepa it xam na ko J'ai posé une question claire et nette à Atepa Goudiaby qu'il nous dise en Casamance kan moo doon financé rebelle di leen jox ay moto Atepa doonu ko wax lan moo tax en 2019 ba projet Pastef na lay yàqu mu daw en au secours jox Ousmane Sonko siège jox ko xaalis ñu ànd ba léegi lan moo tax ba immunité parlementaire Ousmane Sonko jeexee lan moo waral Atepa bi daw ñëwaat encore ànd président Macky Sall pour sauver son fils adoptif wala son fils xaw ma nan pour génne ko des tripes de la justice Chers journalistes, voilà des pistes très intéressantes pour comprendre pourquoi maintenant les couleurs de PASTEF sont les mêmes que les couleurs du MFDC. Pourquoi l'SAMAI chez le, chez le MFDC est le même e SAMAI dans le père de PASTEF. Pourquoi Ousmane Sonko est responsable de tout cela. C'est des investigations à faire. Donc ñun loolu mooy suñu combat donc ñu siy gërëm le DG Lat Diop di si gërëm aussi le coordinateur dans de la commune où nous sommes parce que aussi il est là avec nous et il combat avec nous ñuy wax président Macky Sall na ko bi war jàmbaar jàmbaar yaa ngi noonu nous saluons la bravoure du directeur général de la LONASE nous saluons la bravoure de Pape Gorgui Ndong nous saluons la bravoure de tous ces jeunes là yi nga xam ne ñoo ñoo fi mës nekk ak ñoom parce que nag àndandoo da ngay ànd ak ñu loyal àndandoo da ngay ànd ak ñoo xam ne boo ne tey laay dee ñu lam ñoo ngi ànd ñun gëm nañ bu président Macky Sall ne woon suba lay dee ñi ma leen limal nii duñ des ginnaaw yàlla xam na ko ils seront devant ils seront derrière ils seront à gauche et à droite ils se battront et ils seront les pions qui protégeront la tour parce que lool la loolu la militant bi war a war a nekk donc sant nañ ñëpp gërëm na di gërëm aussi la coalition Benno Bokk Yaakaar bi nga xamante ni moo ànd ak président Macky di gërëm aussi une nouvelle fois encore ñëpp ñi nga xam ne ñëw nañ wuy si ñu di leen gërëm encore une nouvelle fois la presse sénégalaise moo tax nag fi may daal la sama wax mooy ñiy xeexal nguur gi yëpp di xeex ak di xeex di def activisme nañu booloo nekk benn ne soyons pas distraits ne soyons pas déconcentrés menons notre combat menons la menons la dans le pardon menons la dans la dans la compréhension des uns et des autres vice versa bu ñu ko deful rek on a devant nous des gens préparés et ils sont préparés wax naa leen ko ñu ngi préparé hôtel Hibiscus bu Ziguinchor yàggul dara et Pape Alé c'est ce que je suis en train dire ils préparés là-bas mu ànd ak Ousmane Sonko Ousmane Sonko wàcc Cap Skirring kon na Ziguinchor moom mu wàcc Hibiscus ils ont peaufiné une stratégie d'ailleurs ils ont été ensemble la la l'a vu ils ont été ensemble à Darou Mouhty vous avez vu yéen ñëpp journalistes nga xam ne ils ont été reçus par Ousmane Sonko à quelle fin et pourquoi faire donc yéen ñi nga xam ne il vous reste de la déontologie yéen ñi nga xam ne il vous reste li nga xam ni mooy engagement bi ngeen am pour servir l'information et la vraie information la population sant nañ leen gërëm leen parce que ay ndaw laa ay ndaw yu ma xam yoo xamante ni ba ma leen xamee ak yàgg ba bële ñu ngi nekk ci li ñu war a nekk am nañu wala amuñu ñu ngi garder seen dignité parce que doomu aadama noonu la e yoon bi mën na gudd mais yoonu xaaxaam la bientôt ngeen fortàngal màcc ko donc nit noonu lay garder dignité am sant nañ ñëpp gërëm nañ ñëpp wasalaamualeykum wa rahmatullah bu nekk am na